parce que c'est un jeune quoi. d'accord ok Charles le 36e maamu Damel. mi ngi noonu Mbaye Babacar ñu daal di lay bàyyi nga waxtaanal ñu ci suñu jërëjëf soxna Fatka macha allah ñu fas yéene euh, ni ñu ko baaxee defee rek ci alxames ju jot kenn ci sunu maam yooyu nga xamante ni euh, ñoo nekkoon ci réew mi taxaw fi taxawaay bu rafet. ñu jéem a nab na bi ci seen jaar jaar ak ci seen dund tey. jël ki nga xamante ni moom moo di sunu maam Alaaji Ibbu Sakho ci taxawaayam ak jaar-jaaram ci wàllu dundam ñu ci nuyu di ci ndokkeel bu baax njabootam gépp rawatina ki nga xamante ni jot nañ ci jokkoo ak ci jaar-jaaram muy suñu baay euh, Xaasim Sakho maam Alaaji Ibbu Sakho mu ngi gane jamono ci atum 1911 ak ñaar fukki fan ci weeru décembre ci dëkk bu ñuy wax Tëngéej ci gox bu ñuy wax Këri Kaw euh, maam Ibou Sakho nekkoon doom ci sunu maam Alaaji Iliman Sakho ak sunu maam soxna Faatumata Njaay noonu la gane jamono ci diggante ñaari wayjur yooyu ñaari maam yu baax yooyu ci ak euh, ngoneem mu nekkoon koo xamante ni bi ko mag ñi daan xool di ko seetlu ci taxawaayam ak ci ak ngoneem li wolof di lépp naan gone mooy dooni kone mun ko masaan a seetlu rek gis ci moom ne dina nekk koo xamante ni ëllëg kuy taxaw ji diine lay doon bàyyam maam Eliman Sakho nekkoon koo xamante ni ku bari woon xam-xam la ku euh, géeju woon la ci alxuraan nekkoon ku fees ci wàllu yu bari mu daje woon ak Seydi El Hadji Malick fa li nga xamante ni moom moo di njarnde ñu am ay jaar-jaar ñoom ñaar ba noonu ñu ko muqaddamale ñu ñëwaat dellu si Tëngéej euh, taxawal ko fa nekkoon fa imam ratib daal fa jiite moom baayam maam Eliman Sakho baayam maam Eliman saaxoo ci la ko jëlee euh, dalal ko am njàng def ci moom la muy def ci moom ba ni ko jëlee yóbbu ko fi nga xamante ndax euh, ki nga xam ne mooy way juróom maam Abdou Cissé bu jaamal way juróom bu jigéen ak way juru maam Iliman Sakho wu jigéen ñoo bokk ndey ak baay kon baayam lañ ko joxoon mu ko doon jàngal alxuraan foofu ci jaamal bi maam Abdou Cissé bu jaamal demee ba jeexal ci moom ci wàllu alxuraan ci la ko yëkkati jox ko rakkam ju ñuy wax maam Dame Cissé mu dalal ko wallu xam-xam jàng fa xam-xam ba ni mu fa jeexale jóge fa dellu si fi nga xamante ni moom moo di tëngéej dañu dellu see Tëngéej ab diir ci la dem armée mu demee armée yoroon matricule deux cent cinquante cinq six RAC noonu la fa nekkee ba ni mu jógee armée dellusi si maam Ibou Sakho nekkoon koo xamante ni ku teeloon na taxawu diine la ndax ci fukki atam ak juróom-ñett ci la ko bàyyam joxoon werdu salaatul fatiha waaye bi mu demee ba toll ci ñaar fukki at ak juróom-benn. ci la am ijaza bi ñuy wax itlaax nga xamante ni moo lay may ngir nga mën a jox keneen werd moom Alaaji Ibu Sakho ci ñaar fukki at juróom benn ci la am loolu bi mu demee ba ci 1945 maam Ibu Sakho ci la aj Màkka ni ko mag ñi daan defee mottali seen juróomeelu ponk diine lislaam mu nekkoon aj Màkka gu yéeme boo xamante ni nangu naa ci ak jabootam suñu baay xaasim saaxo nett li ma ci ne bàyyam moo ko nett li na aj ga tëdde woon ndax wolof day faral di léeb ne maa fekke ak bàyyi ne bakkan lay laaj moom bàyyam moo ne ko moom mu ne ma ci aj gu yéeme dana biñ demee ba ci yoon wa ni mag ñi daan aje booba ci wàllu oto wala gaal wala yu di demeel ci lam daan aje ñu dem ba seen oto bi duggoon euh, carburant bi jeex ndax ci ni ñu ko calculer woon waaye ñu nekk ci digg désert bi nekk foo xamante ni xamatuñ sax fi nga xamante ni fa lañ war a dem te seen carburant jeex na ci benn diir maam Ibou Sakho ci karamam ak doon nitu yàlla ak li ko yàlla may ci la gis koo xamante ni kenn li ci kilifaam yi ci wàllu tarixa bi mu jox ko ay tegtal wax ko kañ lañ fi war a jóge ak lana leen fi jële ak fan la ñuy dem bi ñu xëyee ma bu saaxoo ne leen heure sàngam dinañ fi jógee nangam dinañ dem béréb sàngam ba heure ba jotee ci la ay tubaab yoo xamante ni ñu ngi doon def seen dox yooyu ñuy dox tubaab yi ci seen oto yooyu ñu yor ñu nan ko ay jibs ci la leen fa fekk ñu nettali leen li nga xam ne moo leen fa gaar mu jox ñu jox leen série 4 boo xam ne dafa def carburant ba fees ñu def carburant mu wan leen yoon wi nga xam ne ci lan war a tegu ba jot at dëkk bi ñu war a jot ngir mën a wéyal seenu aj waaye li gën a yéeme ci aj ga tamit bi ñu demee ba Màkka béréb bi nga xam ne fa lañ dencoon seeni jumtukaay la nga xam ne moo ko war a tijji ñuy caabi ja dafa daf leen a réeroon waaye bi ñëwee ba ca béréb ba moom ci li ko yàlla mayoon bërëb ba tijjeeku na bañ mën a jotaat li nga xam ne mooy seeni jumtukaay mu nekkoon koo xamante ni ku daan wesaare diine l'islam la ci réew mi ak ci bëti réew ci xam-xam bi ko yàlla dénkoon mu daan bind ay téere bindoon ay téere ñu demee ni wàllu julli bind ay téere ci wàllu zakkat wàllu koor waaye tamit wàllu aj màkka ginnaaw bi nga xamante ni jaar na ci yoon woowu ci wàllu wesaare diine waaye mu xam ne réew mi nga xamante ni moo di réewum Sénégal wax lu bokk la ci suñuy baax ndax euh, li tubaab di wax naan culture orale ak culture écrite ñun yàlla dafa dogal culture orale bokk ci sunu culture mu xam ne Sénégal wax ak ñoom ci lan lay gën a déggee mu daal di tàmbali nag di amal ay gàmmu ak ay conférence gàmmu gi mu njëkk amal mi ko amal ci 1900 kooku nga xamante ni moom moo di ngeexoox boobu mu ngi am fukki at ak juróom-ñett ngir xam-xam bu yaatu bi nga xamante ni peegoon na ko ci baayam ak ci maam Abdou Cissé maam waaye ci ñi nga xamante ni jaaroon na ci ñoom ku mel ni maam Amadou Lamine Diakha Cissé nekkoon foofu tamit nekkoon ku yàlla mayoon mu bari xam-xam waaye maam Ibou Sakho gis nga nekkoon koo xamante ni yàlla mayoon na ko mu am fasaxa ci wàllu wax. bu musaana wax waxam daan na euh, attiré nit ba mu bàyyi ci xel waaye nekkoon koo xamante ni ci wàllu tëralin ak wàllu doxalin ak wàllu waxin yàlla mayoon ko ci tamit ba su waxee boo ko dégloo rek daal di koy dégg mu nekkoon koo xamante ni yàlla daf ko mayoon xam-xamu naxu maanaam grammaire arab mu amoon ci xam-xam bu yaatu géeju woon ci lool ba lu jëm ci wàllu firi ak wàllu dégg mbind ak jàngale mu amoon ko lool lool waraloon téere bu mag boobu nga xamante ni Seydil Hadji Malick bindoon na ko muy xilaasu zahab mu amoon ci dégg-dégg bu yéeme boo xamante ni néewoon na ku ko am ci jamonoom waaye mënoon ko firi firin woo xamante ni néewoon na ko mënoon a firi noonu ba ñu wala dégg ko wala mokkal ko ngir lan ngir euh, alaji Ibu Sakho moo leen ci euh, xiir wala moom lañ ci gis am ci moom cofeel ba dem jàngi li nga xamante ni moo di euh, xilaasu sahab mu daan ci fesal bu baax a baax xam xam yu bari yu yaatu daan ci fesal liggéeyu Seydil Hadji Malick daan ci fesal tamit ab taxawaayam euh, mam Ibou Sakho firi lu toll ci ñaar fukki at fële nga xamante ni moom moo di Tiwaawan gàmmu Tiwaawan daan ci fegoo ak euh, Cheikh El Hadji Abdou Aziz Dabakh ci foofu ci Tiwaawan déggoon alquran ak géeju woon ci nga xam ne foo ko ci masaana bett wala nga coq ko ca bu fa tibbee rek nga xam ne déggoon na alquran dana tax na firi alquran foofu nga xamante ni moom moo di fii ci ndakaaru ci juma jooju di jumaay cëddeem waaye fële ci zawiya Seydil Hadji Malick mu bëggoon lool moom maam Ibou Sakho ak bennoo ak bokkoo ci jullit ñi ak yeneen diine yi nga xamante ni nekkoon na ci réew mi ba amoon na wóllëre ak ki nga xamante moo di Pape Jean Paul VI ci 1966 demoon na ba jox ko aw raaya ci taxawaay bu rafet boobu nga xam ne amoon na ko mu nekkoon koo xamante nii tamit poète la bindkat la woon daan bind ay téere yu bari mu bind ko bind ci Seydina Mouhamed bind ci Cheikh Ahmed Tidiane Chérif waaye bind ci ki nga xamante ni moo di Seydil Hadji Malick mi nga xamante ne nii daan na taxaw taxawaay bu rafet ci liggéeyam bu yaatu ci lu toll ci ñaar fukki jàkka ak juma ak ñaar euh, maam Alaaji Ibou Sakho taxawal na ko fii ci réew mi waaye bokk na ci liggéeyam bi lool mu nekkoon ci li nga xamante ni moom la fësale yéeneem ndax boo masaan a déglu ay waxtaanam dana wax ne bu sañoon senegal ak ñi ko dëkkee ak àddina bi yëpp ak guddi ak julli rek dugg biir àjjana ëllëg taxoon mu taxawal Euh, julli gu googu nga xamante ni moo di salaatu tasbix salaatu tasbiix boobu muy amal euh, fële nga xamante ni moo di madinatul munawar nekk dëkk boobu nga xamante ni moom ngay jot booy dugg campement Ngeexoox mu ko fay amal at mu jot euh, mu ko fay taxawal nga xam ne julli googu yonent moo ko joxoon bàyyam Abbas ngir ku ko julli benn sa dund yàlla mën na def sa yaram aram sawara yéen jooju tax mu taxawal ko foofu nga xam ne moo di madinatul munawara maam Alaaji Ibu saxo mi ngi génn àdduna ci fukki fan ak ñett tombe bésu samdi bésu gaaw ci atum 1994 foofu ci Tëngéej ci këram waaye ñu yóbbu ko fa nga xam ne moo di ngeexoox waajal ko fa ci béréb bi nga xamante ni euh, moom moo ko tànnaloon boppam waajaloon ko boppam dan fa def ay ñaan dan fa def lam fa war a def ngir ne su génnee adduna nañ ko denc fii béréb ba mu defoon ko fa lu yàgg waaye kenn xamutoon sax lu waraloon mu def fa béréb ba waaye lenn ci ay mag yoo xamante ni mës na toog ak ñoom waxtaan ci ak ñoom ba bi nga xamee ne génn na àdduna foofa lan ko def man ko fa defee ci la ñu bari doog a xam ne fii moom moo ko tànnaloon boppam daan fa waajal boppam ngir mu génnee jamono ñu def ko fa li nga xamante ni moo di euh, Alaaji Malick Maodo Maodo si baax moom moo ko taxaw ndigalu mag ñu baax ñi noonu la mam Alaaji bu Sakho taxawee ba féeru foofa ca campement ngeexoox ñu ñaan sunu borom mi gër tawut yàlla na yeesal dem yóbbu ko ci àjjana yi gën a kawee ci daraje yonent bi njaboot gi mu fi bàyyi sunu bàyyi Xaasim Sakho euh, sunu bàyyi Tamsir Sakho ak njaboot gi yëpp yàlla guddal seen fan ci daraje yonent bi soxna Fatka que waxtaan bi neex na lool lool lool man dama dama dama am benn benn benn problème euh, xam nga Thiès quartier bu tudd Kër Maam El Hadj. Kër Maam El Hadj waaw. Kër Maam El Hadj Ahmed Diegane. d' accord parce que man sama problème mooy dama mosoon formé que kër maam El boobu ñuy wax El Hadj Ibu Ibu Ibrahima Sakho bii la moo tax di nga ne que mi ngi gane àdduna Tëngéej mhm. mu mu mu mu jaaxal ma parce que dama mosoon formé que Thiès la ndax kër maam El boobu noonu dama fay dem lu bëri ma mos a formé maam maam El Hadj Ibrahima Sakho bii nii lañ tuddee quartier boobu xam nga Tëngéej damay faral di dégg ñu naan dañuy dem kër Pa Ibou Sakho noonu noonu lañ noonu lañ ko waxee mais mosuma xam ne euh, pa euh, maam El Hadj Ibrahima Sakho bii nii mm-hmm. la ñuy la ñuy wax man kay soo euh, xam tey jii nii moo tax sant naa la bu baax daal jox nga ma ay information yu bëree bëri bëri <laughs> parce maa ngi mos a foog ne kër maam El boobu noonu El Hadj Ibrahima Sakho bii nii wallaay wallaay gis nga yéen a bokk yéen a bokk billaay billaay am dëkk billaay këri kaw surtout ah. mu gane àdduna foofu ci këri kaw moom El Hadj Ibou Sakho. ah macha allah. Fatou euh, yaa ngi doon wax euh, ci moom El Hadj Ibrahima Sakho ba am na ay kàddu yoo xam ne sax yaa ngi ko doon wax que moom moo ko daan moom moo ko daan wax moom maam a Sakho. xam nga ñun yàlla daf ñoo daf ñoo dimbalee benn mbir moom mooy dafa am koo xam ne ku doon fréquenté wala dañ koy fréquenté ba léegi nekk nit koo xam ne que Euh, ku ku man soo joxoon joxoon cër la muy Serigne Abdoul Aziz Dieng. Mhm. ca Tëngéej ak euh, ki ñuy wax euh, imam Abdoul Aziz Ndoye. Ah, xam nga moom yaakaar naa ñi ñi ñu yàgg nañ dégg turam. donc ñooñu bu ñu waxee ci Baye Sakho automatiquement tu son que c' est des disciples ay nit lañ ñu nga xamee ne que dañoo yàgg di puiser ci waxtaanu góor gi la. Mhm. xam nga li ma ci gënoon jàpp ma xaw ma xawoon ma def ay ree xam nga moom mooy bi euh, bi bi may dégg góor gi di wax ne que euh, euh, fu mu toll nii ndakaaru seytaane bëreetu fay tànk mm-hmm. ndax am na fa lim fa bëggoon ba pare. Mhm. donc ñi nga xamee ne ñoom ñooy euh, ñi di yëngatu ci wàllu diine. Mhm. ñi nga xamee ne ñoom la yàlla baaxal ba bu ñu waxee ñu déglu mhm. ñoo war a jug nag taxaw seen bopp dëggal seen bopp biir Ndakaaru yàlla mu ñuy dimbali ba kilifa diine yi ñu ngi jëlaat seen bopp. ba ci 31 décembre bi passé di jaajëfal Cheikh Modou Kara Mbacké ci ci euh, façon yi taxawaay bu mu am ci ci ci boo xamee ne que 31 ñu bëri ci ñun. xam nga beneen mbir aussi moom mooy euh, këri kaw la dëkk. man pratiquement këri kaw fa laa yaroo maanaam bi may am ay 6 ans laa daan jëw di jàng foofu ma mais bu mës naa dégg euh, euh, kenn ci mag ñi mu wax ne que mës na ko dégg moom mu wax ne bu daan yeewu fajar xam nga seytaan dafa bëri doole. moom day dem rek baag ci teen bi ak ndoxum sedd bi noonu. Uhuh. day ñëw rek xëpp ko ak ak ndox mi. Uhuh. pour rek xeex ak li nga xamee moom mooy moom mooy moom mooy moom mooy moom mooy bakkanam gis nga li nga genre sacrifice yooyu xam naa boo ko doon defloo paane me nga jamono ji xam naa da nga rek xam nga ak yeneen i xeetu waxtaan yaa ngi wax sànq ne que nit ku ku yàlla mayoon na ci wàllum fasaaxa koo xamee ne que da ngay toog ku sant si toog ku sant Mbàkke toog ku sant laay toog ku sant ñas toog nga am fitu wax ne ne ne amul ken ku c'est pas fit la waaye it jagle la. moom ak moom ak ak kenn ak ki nga xam moom lañ doon waxtaanee la fa passée moom mooy moom mooy sëñ Sam. ñaari ñaar ngi ci ay nit ñu nga xamee ne que li leen yàlla defal bëriwul ku mu koy defal ci jamono. macha allah xam bu bari boobu sax. Euh, sama bàyyi Xasim Sakho. nettali nañ ma ci benn anecdote ndax daan naa ko dégg lu bari. waaye moom moo ma ci wax li gën a wér. nee na macha allah bi muy jàng jaamal. ci maam Dame Cissé. muy jàng wallu xam-xam. am na bis maam daam am lu mu bind xam nga mag ñi yàlla da mayoon am lu mu bind ci wàllu kiis ngir jox ko jenn doomam mu naan ko waaye bi tëddee guddi mu tombeek jamonoy sedd mu sedd lool maam Ibou tëdd sangoo mbalaanu doomu maam daam euh, bi maam daam ñëwee di ko yee gis mbalaan mi mu sangoo ko mu yaakaar ne doom ji la mu yee ko mu naan lam ko bindaloon fekk alaaji bu saxo moo ko naan gis nga ci nammeelu suñu borom macha allah rabbi moo tax mu nekkoon kuy yéeme ci wàllu xam-xam boo xam ne mënoo saa yoo dégloo waxtaanam hmm. jële ci loo xamante ni lu rëy la moo daan wax ci waxtaanam boo amee lu bees bind ci wal xaytu allayka ma xabatan min ni waaw loolu du réer deesu ko sàcc euh, kenn du ko doon ci yow hmm. macha allah mu ne boo amee sax sit bu bees bind ko ca digg ginnaaw gaar <laughs> tabarkalla tabarkalla. monsieur Guèye loolu moo wax. monsieur Guèye ñu lay bëgg waay moo waxaale ko moo waxaale ko monsieur Guèye. Fatou Mbengue yawal <laughs> ah kontaan nañu wax dëgg yàlla waxtaan bi dina lool Fatou Mbengue bàyyi ruub ruube bi Mbaye Babacar jërëjëf ci ci ci li nga ñu indil man moom personnellement li nga indil tey daf ma neex trop c'est très riche ah. Mm. macha allah euh, ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax. jërëjëf soxna Fatka di mm. jaajëfal ñëpp di nuyu téléspectateur yëpp. Mm. di nuyu bu baax Mamadou Ndiol Fall sama xarit.

di nuyu docteur Mbaye Lo di nuyu sama yaay Adja Dieyna ba Fall mm. di ko ziar bu baax di am mbégte mu yaatu ci teraanga yu yaatu yi nga xam ne defal mm. na yàlla guddal fanam di nuyu xarit yeeg soppe yëpp mm. di ñaan yàlla mi ci réew mi ak ci àddina bi yëpp sama nijaay Mbaye Ngom maa ngi koy nuyu foofu ci ngeen sirax d'accord jërëjëf Mbaye Babacar ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax moom itam di ko jox rendez-vous euh, semaine prochaine di wax aussi euh, gars yi nañ bàyyi xel bu baax Tëngéej c'est une ville très riche en histoire ah. El Hadj Ibrahima Serigne Mansour Sy Cheikh Ahmadou Bamba ñoom ñëpp ko fa nekk da nga fa am jaar-jaar am fa histoire macha allah nañ ko bàyyi xel bu baax a baax dañuy daal di ñëw léegi léegi ñu daal di jàll ci rubrique euh, dox dox bi. alors euh, mi ngi noonu ginnaaw bi ñu waxtaanee ci suñu maam ju baax jooju noonu dañuy daal di jàll li nii euh, ci li nga xamante mooy dox dox bi tey euh, sama booy ubbi année bi ci leneen lu lu doy waar ah, comme ni ma ko annoncé tout à l'heure waaye laata ñuy dugg ci li nga xamante mooy waxtaan bi moom ñëw na daal di ñu rejoindre sur le plateau takk na micro ba pare jaxate kabayeer yi si di jaxate damaa jub baal ma <laughs> nee naa la. loolu mënul des 2019 rek yaa. <laughs> ok pourtant bàyyi woon naa ko ak ko ci jàmm ma forcé boppam tamit ah, <laughs> fay naa la Fatou Ka nuyu ñu ma fekk si plateau bi di yi safoo seen émission Petit Déj. Mhm. di leen wax ni rek euh, bonne et heureuse année 2020 doon seen année ñun ñëpp. Mhm. ñu am ay mbégte ak jàmm yoo sax. incha allah incha allah noonu lay demee sax incha allah jaxate kabayeri euh, tey da ngay waxtaanee exercice yi nga xamante woon nañu ko mën a def pour soulager les mal de dos. effectivement mal de dos surtout ak seddaay bi ñu ci bëri dañuy faral di méttitalu ay ndigg. Mm. wala lu ci mel ni dos. Mm-hmm. moo tax tey nag may indi yenn exercice yoo xam dina soulager douleur boobu. d'accord ndigg li aussi ci ci la bokk. ci la bokk waaw d'accord jërëjëf jaxate am na solo daal. <laughs> Euh, Fatou Mbengue drogue bi ñuy nemmeeku ci milieu scolaire bi euh, tux cigarette bi tux bi naan alcool bi dana waar. non mais ëpp na ëpp na waar parce que xam nga ndeysaan damay dégg bu may euh, euh, déglu euh, discours du président de la république xam nga pour souhaiter ñu une très bonne et heureuse année. Mhm. xam nga j'attendais au moins que mu wax ñu si lu tolloo ko sept cent et quelques kilogrammes yu drogue bi ñu saisir. xam nga wax ñu aussi maanaam yenn dispositif la ñuy jël pour mën a parce que il a trop parlé de prévoir l'avenir prévoir l'avenir mais aussi prévoir l'avenir xam nga c'est protéger sa jeunesse quoi prévoir l'avenir je pense que c'est prévenir li nga xamee ne que moom mooy ay dommages yi mën a am ci ci ci ndaw ñi donc loolu déjà man personnellement samay attente la woon quoi xam nga il en a pas parlé peut-être bi dinañ si joxal ay explication moo ñu gën a jege pale. man am naa si explication waaye nañ léegi si kaw loolu. on a tey ñu ñu andi eh, seetlu jëmale ci wàllu woowu noonu. Mhm. genre dañu seetlu ne que dafa bëri ay xale yu nga xamee ne que maanaam dañuy ñeme eh, cigarette dañoo teel a ñeme tux. Mhm. Euh, mu nekk mbir mu nga xam ne c'est comme si que c'est des c'est des c'est des jeunes ñu nga xam ne que ils ont entre euh, douze ans treize jàpp quatorze ba jàpp dix-sept ans. donc euh, mu nekk mbir mu nga xamee ne que c'est c'est c'est déplorable parce que donc bu ñu bu fekkee ne da nga nekk ndaw nga war a liggéey ji di jéem a défenseur ba stimuler say intelligence ci beneen anam xam nga bu nga xamee ne que maanaam c'est à travers ay exercice c'est à travers yeneen fexeedu liggéey yoo xam ne da nga koy def ki stimuler sa sa sa sa sa sa intellect mais malheureusement si jamono bi ñuy nekk nii nii beaucoup de jeunes s'adonnent à lu ñuy wax ay genre stupéfiant wala ay euh, en tout cas ay substances illicites yoo xamee ne que boo ko utiliser daf lay daf lay gën a relancer pour que nga que tu sois un peu plus intelligent alors il commence par utiliser li nga xam ne moom mooy cigarette certaines personnes nous diront que maanaam cigarette c'est c'est c'est légitime nit ñi maanaam amul benn benn ngaañ boo xamee ne bon am na ay ngaañ quoi mais maanaam c'est c'est légal mën nañ ko xam nga c'est mm-hmm. pas interdit d'accord mais pour un jeune boo xam ne que il a 12 ans 15 ans wala 17 ans est-ce qu'il est obligé mu utiliser cigarette pour pour mën a wax ne non dafa sedd bu ma ko defee danaa gën a amaat amaat amaat relance ci sama sama intelligence je pose question et su fekkee ne que maanaam ñu ngi koy def euh, defuñu ko parce que tout simplement maanaam euh, euh, dañuy dañuy relancer seen intelligence wala dañuy dañuy bëgg nekkaat si dans leur peau comme ni ñu koy waxee mais le plus souvent dañ koy def parce que dafa dafa nekk tendance ci ñoom le plus souvent dañ koy def parce que dañoo dañoo ils sont curieux le plus souvent dañ koy def parce que tout simplement il y a beaucoup de d'influence boo xam ne dafay nekk ci seen kanam donc loolu déjà mu nekk quelque chose à déplorer au fur et à mesure du temps ngay dem euh, ngay utiliser cigarette alors certaines personnes di wax ne que non y a pas le feu wala boog fréquentation bi xam nga daat koy banaliser ci sa kanam hmm. ba au fur et mesure du temps ngay dem da ngay dem ba am yéenew alors découvrir euh, yi yi nga xam ne moom moo bi gën a mag moom mooy exemple chanvre indien bi mooy yàmbaaji ak yu ni mel ay sumakaali comme waaw comme niñ koy <laughs> faral di waxee d'accord mais lii nga xamee ne que moom mooy gën a euh, complexe wala compliqué moom mooy Euh, structure yi nga xam ne maanaam ay parents d'élèves la kii moom mooy exemple waaye comme waa UNAPES wala ay COSYDEP ñoom depuis un temps ñu ngi nekk di alerter. ñu ngi nekk di wax maanaam nguur gi nañuy jël ay matuwaay ci li nga xam ne moom mooy euh, drogue bi nekk ci biir école bi. Euh, dama lire benn enquête bu nga xamee ne que benn site internet ñoom ñoo ko def récemment bi ma nekk ak samay recherche maanaam ils ont parlé nekk euh, au niveau de Kaolack ak yenn école damay bañ a tudd tur école yi nekk fii nii ci ci région de Dakar. xam nga donc bu ñuy bu ñuy expliquer ni nga xam ne moom mooy ni booy di utiliser kii bi. souvent bu heure heure heure dugg bu jotee exemple huit heures sept heures la ñuy ubbi école yi ba huit heures foofu contrôle du am ci biir ci entrée école yi que muy école publique wala privée cest à ñu ñëw dañuy dugg. et ci moment boobu noonu ci la ñuy ci la ñuy paasante affaire yi quoi cest à ci la ku nekk li ngay def ci sa sac xam nga nga def ko ci boo ñëwee alors ci biir classe yi wala boog ci biir école yi alors ñu ngi ko fay utiliser. ñii bu fekkee ne que dañ koy utiliser ci période de récréation bi ñeneen dañuy bàyyi ba nga xamee ne que maanaam génn nañ am nañ euh, yoo xamee ne que ils se forment xam nga créer seen seen seen yoo xamee ne que ils na benn anecdote boo xamee ne maanaam jot naa ko ci am kii c'est un jeune étudiant bu nga xamee ne que maanaam moom bu daan bu daan jógee këram week di dem di dem euh, université ci biir koñ bi mu dëkk am na ñu nga xamee dañ ko fanaan daan weccee maanaam maanaam dañ koy dañuy jaay quoi moom dafa boo bokkoon ci ñi nga xamee ne que pour subvenir à ses besoins donc dafay dafay day am ay collaboration ak ñi nga xamee ne que c'est des ci biir koñ bi d' accord bu ko defee dañ koy defal affaire yi ay buuka yi ci affaire yi normal xam nga mu def ko ay takk daal di def ci saaga ko defee bu demee à l'université yóbbaale ko comprendre moom loolu muy def noonu à la fois dafay dem daal di yóbbu euh, ay euh, versement mais aussi day fajaale soxlaam mm-hmm. parce que financièrement ils sont pas ils sont pas à mm-hmm. xam nga ba tey du prétexte mm-hmm. d' accord mais li yàlla di dogal kenn ci ay ndijaayam mu soxla woon euh, euh, stylo par exemple bon fatka ngay teg sa sac dem def sa besoin mm-hmm. en attendant ngay ngay dem man ma nekk sa nijaay jël sa sac ubbi fi mu ubbi pour euh, jël stylo man fekk naa fa ay ay ay mbir xam nga gis nga te yàgg na def loolu noonu mm-hmm. jour boobu noonu lañ doog a xam ne que booy bii nii il utilise cela xam nga ce qui est dommage donc une manière donc de dire que ñi nga xam ne ñoom ñooy parents yi. Mhm. dañuy di bàyyi xel li nga xam ne moom mooy seen seen ay seen ay kii seen ay seen ay parce que changement de comportement yi ak même su fekkee ne que tu parviens pas à joindre les deux bouts. maanaam mënuloo kii nga xam ne day dem à l'université nga yëkkati benn dix mille franc benn quinze mille franc benn cinq mille wala lu mu mënti nekk nga jox ko nga jéem a ba maanaam boo ko boo ko waree euh, génnuloo sa kër nga dem teg ko ci feneen jéem a nga xool ci benn environnement boo xam ne bu fa nekkee dinañ am ku ko am fitu contrôler xool lan mooy li muy li muy li muy nekk ak li muy naan ak li nga mooy li muy fi muy mm-hmm. te ba tey ci statistiques Euh, lu tolloo ko 62 virgule 3 pour cent si ay jeunes dañuy utiliser euh, drogue que maanaam euh, mu nekk ay ay injection wala mu nekk cigarette wala mu nekk lool di chanvre indien et ci biir 62 pour cent yooyu noonu 5 pour cent yi nga xam ne dañ koy utiliser ay ay ay donc chaque jour ñu ñu ñu gis ne que alors c'est des élèves ou bien c'est des élèves ñoo xam ne maanaam ils ont ils ont entre 15 jàpp ans. Euh, maa ngi wax tout à l'heure waa UNAPES ak waa COSIDEP ñoom wëy nañ di lancer alerte mais boobu léegi nii malheureusement ils n'ont pas alors gain de cause ci wàll wi ñu ngi wëy di def ay conférence ñu ngi wëy di def ay appel ñu ngi wëy aussi di euh, alerter ñi nga xam ne ñoom ñooy euh, maire yi ak président conseil départementaux yi parce que lu tax ñu leen di wax parce que dañuy seetlu ci buntu élèves école yi buntu yenn établissement yi war a bokk ci université yi fois dañuy gis maanaam ay cantine di fa ne cantine wala ay boutique te loolu noonu influence la ci ci élève bi pour mu mën am liberté def li nga xam ne moom mooy li mu li mu bëgg a def donc euh, moo tax ils essaient autant que possible à que ñu am pour interpeller ñi nga xam ne ñoom ñooy jël euh, cantine yi di ko installer foofu noonu te loolu yëpp bon peut-être économiquement baax na ci ñoom parce que dafay dugal maanaam dafay yokk seen ay seen ay euh, patente ñuy mën a am ci boutique yeeg ci cantine yi mais dafay gën a yombul aussi élève bi mu dugg ci dem jëndi cigarette wala dem jëndi yenn yenn yenn mbir yu nga xamee ne que maanaam xam nga mën nañ ko jaay de manière illicite illégale euh, ci en cachette même te duñ ko duñ ko duñ ko duñ ko xam moom moo tax boo xoolee ñaari structure yooyu noonu ñoom déjà ñu leen di jaajëfal parce que am na ay nit ñu nga xamee ne que à chaque fois bu ñuy euh, lire yenn ci ay article dañuy gis seen tur dafay ñëw day ñëwaat comme